Euh, voilà ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm ci euh, teewaay bi ñun euh, ñooy représenté ASAFEF ak Sunewar mu nekk un groupe digital et qui regroupe près de 5000 femmes et là dañu teew camp pénal sur invitation de Serigne Abdourahmane Mbacké Afia mi nga xamante ni baaxoo na di indil pensionnaires yi ay xéewal bu at bi tolloo fii e ñun ci loolu la ñu fi ñëwee ànd ak moom ak di rafetlu teraanga bi ak xéewal yi mu leen di indil ci loolu tam ñun euh, waa ASAFEF dañu nekk tam euh, association jigéen bu yëngu dans le développement e bu yàggul loolu vers euh, ci toll ci 23 janvier ñi ngi woon camp pénalu Koutal pour di fa installer une bibliothèque islamique ci taxawaay boobu ñi ngi fa àndoon ak imam Mouhamadou Abdullah Cissé bu ndax loolu yëpp nekk ci li nga xamante ni dañuy wane taxawaayu jigéen ñi ci dëkk bi Euh, nekkuñu ñu rek ci yëngatu ci loo xamante ni amaana jëmewul réew kanam jigéen ñaa ngi ci waar wi euh, ñi ngi dimbali seeni borom kër itam ñi ngi nekk dans le développement tey fii ñu ñëw muy camp ñi fi nekk ci góor ak jigéen sanuy càmmiñ sanuy nawle jigéen ñoo fi nekk mu nekk béréb bu doy waar ñi fi nekk am na ñoo xamante ni dañu tooñ am na ñoo xamante ni dañu leen tooñ et bu ñu fi ñëwee dañu am yaakaar ci ni di yàlla ak ni fi sëriñ bi ñaan yàlla dana leen may xolu muñ et que yërmande yàlla dina leen fi fekk et ñi ñu fi fekk ren ñi ngi leen ñaanal tam ci li sëriñ bi ñaan bu déwénee bu leen fi fekk yal yàlla wàcc ci ñoom yërmande merci euh, voilà euh, les pensionnaires yi ñu fekk fii ci camp pénal euh, lancé nañu un appel auprès des autorités pour que ñu leen di bàyyi xel ci appel yi parce que am na fi ñoo xamante ni ci biir fi ñu nekk appel bi yéex na ba nga xamante ni que ñenn ñi seeni ay soxna dem nañu ñeneen ñi seen i waajur ñàkk nañu seen i bakkan ci seen ginnaaw et muy lu tiis ku ci nekk si ñoom daal vraiment ñi ngi ñaan autorité yi ñoom ci seen plaidoyer nañu leen bàyyi xel ils en ont besoin merci